Touba waaye moo ko bind moo ko bind ko bind ko mille neuf cent soixante-douze yii topp di jiite woon nga woon version bu mujj bu mujj émission bi ndax génn ko ba jël seen saam firi ak bi seen ñaar yooyu la jubale boo gisee bu ko defee wër nga boo sant ne comme nii bu defee nii mooy defee bu defee nii du foncé bi hmm. bu defee def version bu bees bi sëñ Abdourahmane fii hmm. daal bu daal ah kon loolu lay différence mooy différence bi foncé defee nii mooy dafa la ñu Abdourahmane moom la gis léegi suñu rafaa ko defal ci wolof sëñ Sam may ko traduction initiale moom traduit ci français mais bii li version réactualité la Sam bi dañuy def contexte ageo géopolitique bi sëñ eh, bi bindee Masaalik wax leeral jamono bu ñu fekkoon ak xam-xam seen tool préface bi nag sëñ Afi Niang ñu am nañu moo ko def ñu doon liggéey bu am solo ci gars yi ci eh, édition 2017 bi édition bu njëkk ba daanaka ay 97 jamono suñu ndax dañ ko defoon donc loolu moom sama moom moo moom dañu am contexte politique bi nekkoon ak ci Sénégal ci précolonial bi diggante colon yi yi buur yi fi nekkoon sëriñ si bëggoon taxawal lislam waaw loolu baax nañ loolu dara baax lii moom kay ni ñu dugg gerte ak ñeent la woon nag moom wala juróom juróom wala juróom dix-sept ans dix-sept ans juróom ñett waaw bind na dix-sept ans waaw dix-sept ans mbàkk mi waaw Cheikh Fatou mi moom defe naa ñoo nekk loolu yi ci saa yi waaw c'est sëñ bi jërëjëf ah, lii moom amuñu fay bi <laughs> ah, amuñu fay bi kontaan nañu trop ah, lii